assalamualaikum mbokk yi ziar naa leen di la nuyu yeen ñep ku nek sa tour ak sa sante di wax ni Cheikh nias xawmako karok ko karoog sama waji police la koy doo ko gis c'est la première fois présentat bi sama mën ni yakana ni jël ko ci ndax ñu dañu ñew pour moy def ngir yalla tax hein man ma kan ki ma doon xam ngeen ko man la man mënumaa reer yëmbal la dekk studio hein li man jëru ngeen may laaj da ngeen may déglu ma wax li nga xamanteni ñun mom la dund non man man jëru ngeen may laaj li ma dund kee laay wax. voilà léegi man problème bi li seex Niass waxoon police yi laay wax ku dee ak sa bàmmeel ca biir violon ba ku dee ak sa bàmmeel ñun def lu baax moo ñu fi indi def ngir yàlla tax voilà mun moo ñu fi indi pour def témoignage mais ñëwuma pour ñu may questionner may wax damaa ñëw wax leen ni leen carrément comme moom bi muy ñëw di fa ci violon bi fa ñu fekk ñuy lijjanti suñu copain bii taximan la dafa problème foofu. bim mu ñëwee moog policier bi ñu dugg si biir policier bi dugg muy dugg policier bi ni ko doo dugg si bureau bi mu ne damay dugg da ngay dugg da ngay dugg wax ma wax policier bi dugg wax li muy wax génn ñu dugal ko si biir violon bi mais moog policier ba lañ wax fële moom xaw ma ko dañoo ñëw rek policier bi dugg si biir wax li muy wax génn ñu dugal ko ci biir violon bi bi ko dugalee ci biir violon bi sama waa ji la fa fekk nee na ko carrément damaa feebar man li may dund fii sax mënu ma dund moom nee na sama carte grise laa fàtte ak sama asserance doon na woo sama waa yi sax pour mu jëlali ko ko mais gars yi nanguwul kenn wax ak moom sama waa ji ñëw na di wax ak moom ñu dàq ko après si ginnaaw bi si benn doomam ñëw foofu di wax ak moom gars yi dàq ko mu dem après ñun si lañ toog foofu ba ay benn heure bi ay 10 heures si lañ jàllale sama waa yi ñu bàyyi ko fa. mais moom bi ñu ko fay bàyyi wax dëgg yàlla mi ngi ñàkk tooy xëpp sama waa ji ndox mi ñu ko jëndaloon ñetti mbuusi ndox naan na ñaari naan benn bi ba mu xaaj ni sa waa ji damaa feebar. il faut ñu jël li ma sama garab kër ga di ko wax policier bi ak samay pièces pour ma man a génn fii man fii mënu ma fi dund dama feebar di ko wax nii mais foofu man ci bioloo bi wax dëgg yàlla yàllaa ma tim gisuma fa lu mu def policier yi wala mu wax leen ko fa ay pay ay këyitam daal la wax sama waa daf ko fàtte carte grise am ak assurance ci loolu laa xam ni moom la fa wax waaye ku dee ak sa bàmmeel ñun dund bi mu dund ak sama waa ji foofu am lu mu ko fa ji ngor ni ko yow bu ma génnee naa la jëlal avocat di wax ak moom ñun loolu moo ñu fi taxawandi ndax ngor la diggante bu gàtt lañ fa def matu sa deux heures de temps ñu waxtaan fa ba mu ni ko yow ma génnee naa la jëwal avocat ndekete woo kii day génn bàyyi ko fa ba moom fa lay jaare wuyu ji këru dëgg te li ko fi andi woon nag doon naa dégg ñu ne màggal gee ko fi andi waaye yàlla na ko yàlla yërëm si jëmmi Seydina Muhammad ak si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mais man li ma gis fee ci vin la moom wax dëgg yàlla deful dara damaa wax daa fàtte ay pièces am la fàtte si ginnaaw bi nag si leen dégg si réseaux ñu ni gaañu nan sa waay génne photom ci numéro bi ko joxoon enregistré ko mu gis euh, profil bi muy mom après ci ginaaw bi ñun demb lañ fi ñew wax ak yaayam mu ni bu suba ngeen ñew fi wasalaam loolu laa amoon lu ma ciy wax. alaykum wa rahmatullah ma ngi ñepp kenn fu ne sa tour ak sa sante di len wax ni euh di len massa coono di len jale Cheikh Niass yalla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana fam jëm yalla na ko gënal fi mu jógee yal na dee di noflaayam parce que nit ku bax la nit ku bax vraiment vraiment nit ku bax la lima xam ci mom dal euh, bax yaru tabe la xam ci mom man parce que loolu la gis ci mom quoi man euh, ma ngi fofu la fanaan ci police bi mom Cheikh mom ma fa fekk ay 10 h jëm kaw 10 h 10 h et demi bi mu ñëwee ak ben alkaati la àndal alkaati bi duggu bureau commandant bim duggé Cheikh ni man damay duggu kama kama té sama kayit man damay duggu alkaati ni ko non non da ngay taxaw xaar ci la taxaw xaar alkadi bi duggu tej buntu bi bimu duggé nak man xawma luñ wax ñom fofu ñom ñoko xam mais bimu gennaté ci bureau commandant bi doon duggal cheikh ci biir buñ ko duggalé ci biir nak mom xamna ni ki mom ñun leen mëna tenir mënu koo tenir quoi waaw parce que duggé rek même pas 5 minutes dafa tambali ñak ñak ñak bu metti ndox mi mo sama gaay indi indiloon fallu ci laa jël jox ko mi ngi tari alcorane di ñaan def li ci ndox mi naan bennaat beneen naan mais mi ngi ñàkk tooy xib wax dëgg yàlla vraiment ci kaw loolu mu yëkkati benn butéelu boisson di ko jox mun ma noo sucré bi baaxul ci man doomam ji na ma tee mooy yaa ngi foo n'est-ce pas après yow ci nga ñëw di ko seet bi nga ñëwee da ngaa dugg rek man la booy na nga nuyoo de door a ñëw sinon boo ñëwee dama doon xalaat ñu dàq la parce que boo bëgg naa nga ñëw wax ak moom ba man koo génn ci situation bi mais yow bi nga ñëw chef de poste bi mi ngi wuyu téléphone bi nga koy nuyu bayiw ko xel parce que mu ngi wuyu téléphone ci ko wuyu téléphone gi yow nga ñew sa papa mi nga wax ak yow mënootoo taxaw nga ñew mais chef de poste bu mu coupé daf la wax boy jogal fofu demal wo ci nga dem ci la wo sam waji fallu niko fallu kay mu ñew maniko ay dimbali sama waji nga jàppaleel mako way bo mané dem euh asegnaya nga lijjantil ko ay kayitam ci la fallu ñew mom tamit di di expliquer mais bi mi expliquer momit avant mu yegal limi wax ak cheikh don ko dakh mom mi mu dem legui nak ci la jël ndox mi ma yoron diko diko jox par mbous mbous moko jox mu téye di nan ma ngi téye benen diko xaar bu paré rek man ko am jox legui ci la ma ne yow booy ma jël sa numéro mais sama numéro Sénégal këruma quoi sama numéro France la lay jox suma génné inshallah na la jappalé na la jappalé nan faxé ba nga ñew keur ga inshallah legui ci la wo ben alkaati bo xamni fekkewul affaire da num démé mom dafa xey ci rek ci la ko woniko ni mo ngi ma nga numéro maam Cheikh Niass ci la ma ko bindal bi ma jogee ci moom matu une heure de temps deux heures de temps lay tollool ci laa génn ci laa ko def ay vocal vocal yaa ngi sama téléphone ni ko maam Cheikh ba gars yi nan la yaa ngi ci jàmm ndeke yitte yi xam naa gars yi bàyyeegun la mais incha allah dinañ la bàyyi loolu laa wax ci vocal bi ma ko tegoon ni loolu laa ci wax vocalaat ko ni ko ah affaire day yàlla dina def jàmm incha allah léegi daal man daal xam naa bàyyi nan ma tribunal mais am naa sama benn boy ma bëgg nga dimbali ko te yàlla tax kamaa ko nga amoon yéene jàppale ma tontuwul moom tamit vocal mi ngi fi ma defaat ko extra extra ay vocal liirul ba léegi léegi nag ci laa déggee ma déggee rumeur ma ne ah comment que gars yi nee na sama waajo moo gaañu ma xool muy photom whatsapp am bu ma duggee profil bi moom laa gis ma seetaan réseaux sociaux yi gis wa maire bi wax maire bi maire am ak yeneen kilaa laa woote ci numéro pour faxe xam fi mais dama laajte ba sonn door a xam fii sax parce que man ngor gi ma ji moyu ma man ma bañ a ñëw fii quoi tey jii grand moom dem na mi ngi ci dëgg man maa ngi fen parce que waxon wax am lu sédalaw amna lu waxante man ak mom quoi mo waralon ma top action bi nak pour ñew fi jaale len ma leen len xamni Cheikh nit ku bax la mais doona bëgg pour ñu nil ko ay garab nak mu wax ko ben euh chef fofu ci ñom ne ko sama garab yi la bëgg ñu wotel ma pour ñu euh, mako indilé mais bimu ko waxee wax deug yalla chef bi daf ne ko ñun mënu ñu dem di jëli say garab mais say garab bu ñëwé ak ordonnance bi buñ xolé li nga war a jël ci garab dan la ko jox mais nanguwuñ ko may mu woote sama waa ji laa bëggoon mu dimbali ko ci loolu dañ ko daax booy bi ñëw na bëgg a jël caabi ji dem indi extra extra dañ ko daax moom it foofu daal maanaam mooy nu ko fa dara daal ci gàttal ko ku dee nag ak sa bàmmeel parce que nee woon na moom ku dee ak sa bàmmeel la nga fa jëf moom nga fay fekk moom seex waaw avant avant muy jóge foofu ni leen man du ma nit ku bon maam Cheikh Ñas laa tudd sàcc fenu ma li laa jot a xam ci moom baax googu mu baax ak loolu mu ma ji sama ngor muy moo man ma bañ a ñëw fii su ma ko defee rek du ma gor quoi wasalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di masawu ñëpp waaw euh, di ko seedeel ni ko yàlla na ko xolam fay ba ma xamante moom yàggul mais xam naa ni bu ko xolam fayee dina kontaan fa mu tëdd du wax kenn lenn. mooy que fexeel ba le tout yow ñu gisante la ma wax ndax yow dinaa la jàppale mun ma man démb laa France am na wala amul mun ma dama ñëwoon di xaalis pour maye ñi ma doon ñaan paas màggal man ma wax loo xam ne xaw ma ko fu ma woo ba tribunal bu ma woowoon man damay taxaw seedal maam Cheikh Niass lii parce que man moo ma ji ngor te man gor laa te man gis naa xool xoolaat xam ne maam Cheikh mi pour a gor la nga fa nekkee également amul benn scène de violence bu euh, non kenn kenn ko mais maanaam mënuñu ko ñu wootee daal baam maanaam pour maanaam mën a lijjanti boppam may ñu ko libre boobu quoi parce que dañ ko mere xam na parce que nu mu fa ñëwee moo tax ñu mere ko waaye buñ xatal nu ko defuñu ko dara waaye maam Cheikh doon na wax ay bëgg-bëggam bëgg-bëggam yooyu nag lan répondrewul maanaam nu nguñ koo wooteel fii ci kër gi nu ngu jox booy bi caabi ji pour mu ñëw laaj nga caabi ji ñun la non loolu nag xam naa ci lu ko gën a métti la ak ko gën a sonal ak meeram doon waxtaan ak man naa ma sama meer oh sama meer bu ma gisul tey dina na doy waar quoi dina yéeme mais nag bëgguma mu xam ko quoi bëgguma mu xam ko xam nga ci xam ne kii bu baax a ngi nii quoi vraiment man liñ dund yàggul daal waaye maa ngi koy ñaanal yàlla mu wàllu ko yàlla na ko sëñ Fallou teeru yàlla na bàmmeel dina flaayam asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp xam ni man damaa def sama devoir rek mais man na maa téye sama téléphone di gis photo Mame Cheikh ñas nii ay 10 heures jëm kaw ay 10 heures jëm kaw la 11 heures ay maanaam demi maanaam jëm kaw moom lan ko si suba gi si suba gi waaw waaw maa ngi jaale ñëpp di masawu ñëpp xam ne man yàlla rek moom ma tax di wax waxuma loo xamante ni si nii gisuma ko li ma gis exactement moom laa wax waaw bu amul ñi doy nan may seede ñu ngi nii bu amul ñoom am na ci ci bari bi muy am ñoom soriwut ma maanaam maa ngi fii mais ñoom ñu ngi nii taxaw te booba maa maam Cheikh ñoo ñoo nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah man Lamine Diop